daana ko sëriñ Tuubaa dénkaane ndax dafa ne teggeen yekk kepp la booy dox ba gis ko yàlla taral na ko taral na ko taral bagus dox ba gis ko yàlla jey na nga ko jey na nga ko jey booy dox ba gis ko waxal bi yàlla tëralu ko jëyu nga teen baa ngi nii yoon waa ngi maam Sëriñ Fall ngi toog ci buntu kër benn xale ne morom ma kee maam mu ne ko waaw mu ne ko nan fa jaar mu ne ko kilifa dégg sëriñ ko tegg de mu ne ko danoo yàkkamti li te ko defee mu tii téewlu mu ne ma ko tegg mu ne ko man du ma ko du ma ko tegg mu ne ko andi li nga yoroon mu jox ko la mu yoroon jëm sa teen la ma nguur si jaar nii maam Sëriñ Fall ah, sama doom doom foo jëm mu ne ko ca teen bee laa jëm mu ne ko ak ah, kee mu ne ko ah kee de moom nee na daa yàkkamti mu ne yow yàkkamti woo nga jaar mu ne ko waaw mu ne ko yaa waroon a daanu ci tem ba waaye moo ci daanu daal di ko ñaanal mu jóg topp ca waaja waaja àgg takk poli bi ne na ko làbbali bu duyee bu njëkkee génne ko ba nga koy làbbale ba ko yóbbaale ko kon teral ko yàlla teral ko mu ko ci bismillah jay ko yàlla jay buur bi daa toog dagg yi wër ko xam nga xayti wàll yu ci li ma ci xam li ma dégg ñu ne noonu la ñetti xaaj la am na koo xam ne yàlla mi ko def doo dong moo koy xam day faatu ba am ñetti fan ca bàmmeel doo ko xam ne wàllu kenn du ko xam ku dul yàlla am koo xam ne moom mi ko doon yàlla dana ko ko xamal waaye nit ñi ñoom dañ ko koo xam ne nit ñi dañu ko xam ndax fii moo la joxoon kur dina la joxal ma ko wàllu am na ko sa xel dem koo xam ne yaakaar nga ne ko ko wàllu muy ñett xaa ñooñu kii nag ànd ak moroomam mii moom yi la yàlla xamal ko ne wàllu morom mi ne ko nag nan jaar ci buur bi nuyu ko mu ne ma mu ne ko man defe nga ne buur bi tax a jaar mu ne kon ma jàll mu ne ko ko jaar na man mu ne ko yaa kenn ki dikk nuyu nuyu buur bi buur bi ne ko waaw kenn nag lu tax ñëwut mu ne ko nee na moom buur adduna du ko tax a jaar moom wali bi mu da buur bi daal di yebal daal ne jëli leen ñu eh, mu ñu ne ko boo ni mënu torxal sëkkatal ko bu ñu ci buur bi mu dikkee buur bi ne ko yow nga ne buur adduna du la tax a jaar mu nakk nakal mu ne yeewal leen mu fab wàlliyu boobee yeew ca naaj moom ñàkk tooy xel mi xalaat ne man nag suñu borom jaaxal ndax moom mi ma def may wàlliyu kii du boorub adduna kepp mu dem a seetaan ak moom mu di ma toroxale nii am ko dend moom ne ko sa borom nee na dama laa jox baatin nga nangu ko ma jox ko saayir nga weddi ko moo tax ma seetaan lu mu jëfan ci yow saayiram mu ko <laughs>